waxante dëgga ngir yàlla rek ñu leen waxante nga am ñaari jabar nga ne yow nga islaam yow ibaadu si góor loo war a sa kër dem bi si jigéen tàggawaloo sa jabar tàggawaloo kenn nga dugg sa oto bopp yoot dem si néegi jigéen ñu lay massage loo fa am yaa ko indil sa boppa nag wax dëgg neex yàlla nag dina waxante dëgga dëgga dafa metti ah sa jullit laa wax nga def loolu te jullit dañ ne góor waroo simeeku si kanami jigéen sax bu nekkul sa jiga jabar sa mu lay teg loxo dafa xaraam asi julit suñ fi jógee dina ne leen suñuy wax dëgg ne seetam su diina bi tuuti ñu bàyyi farfaraatoo farfaraatoo bi moo tax Afrique demut nit tey dangay xam nit mu nekk si gouvernement mu def lu bon nga di ko faral di ko faral di ko faral di ko faral ba mu rey ay junni junni nit si boobaa nag yi yëpp ngeen rool ne bàyyi farfaraatoo man su leen eboo ngeen saaga ba suba su ma yónnee ko sa sama fu sama fu laa wax leen la toppa benn Adji Sarr benn Adji Sarr benn Adji Sarr lan la Adji Sarr nit la comme Sonko am famille comme Sonko doom jur ko comme Sonko jigéen jur ko comme Sonko yéen lan la balaa may dee Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr moo ama Sonko problème na ko lijjanteeg Sonko du yéen du man fekkewu leen bu Sonko doon dem tàggul leen tàgguwul jabaram tàgguwul waa dafa demal boppam lu ko fadal dal la yéen lan la du leen jël benn nit ki rek ngeen jox Sonko euh, victoire ngeen ne Adji Sarr am victoire te Adji Sarr muy sénégalais muy jigéen muy yaay waaye yéen tam ni sagal suñ jigéen ñi waay bu nu tuutil suñ jigéen ñi lii moo tax jigéen bu nu fi violé dina ragal a génn ni ku jog ngeen tuutil ko ku jóg ngeen dama ndigaam ba kañ li su nekkoon Europe la tey European nation teg seen loxo waaye Sénégal rek mooy tuutil ak Gambie ñooy tuutil seen ay.